soo xamal na ko murid sa su a murid yi ak borom na ko mel noo murid ba mu noo waa te dikk te su ko see ya salaam gisee ya salaam ya salaam waram ya masalaam ba mel ni kuy na lu wax waa waja wojele waja waja wajala waja waja wajala dégul ma dégul ma wajala waja waja wajala Mame Maodo Malick wajele Mame Maodo Malick wajele nit ku baax la wajele ku am diine wajele ku am lislaam wajele jàmbaar la wajele so wote mbooloo wajele ay nga ko wuyuto wajele woki boko wuyuto woki Seera Fall oo jëlo Seera Fall oo jëlo ku baax la ku am diine ku am islam wajala jàmbaar la wajala maam Seera Fall Seera Fall wajala Seera Fall Seera Fall maam Azan Fall Seera Fall

ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bége bu baax a baax baax di leen ndokkeel ci weer wi ñu génn di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul sunu jaamu yàlla yëpp sunu rëcc rëcc yëpp yàlla nañu ko yàlla jéggal te am nañ ci yaakaar ndax ko am seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nga yàlla subhaanahu wa taala te ko am mbégte yàlla sa mbir yëpp baax na alhamdulilahi rabbil alamin nit ñi war nañ ci ak pas-pas bu mat sëkk ni ko firnde euh, léegi ñëw tuxal ko indi ko fii ci terrain de basket ndax dañoo nii euh, yëf yi kat xajatul fële mu mel ne nekkul chérif ci jàngat euh, mbirum diine mbirum islam amul tànk ginnaaw tànk kanam dong la am naka nga jàngate loolu chérif waaw xam nga mbir mu nekk boo bëggee xam euh, résultat bi rek dangay xool asr bi mooy cosaan la تجسان صان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سين ما مشانا شخصات بدفع وخني لأجله خلقت الأشياء وبسط الأرزاق والآلاء تبارك يا يوم لا يالا ساكي لبولو ينجو تكو سوف لبولو يخول تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورا الله ساكي تجنا تقلنا الله مم لبدفع فنك جلوهم لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم رك ده جم كلام دين الإسلام جب أن نتلا تام بلي مي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاي مو دين بي أبوم بولو شيء أدنى بي كون لو لونيو تدي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يالا موكاي لي ني واخ وقت كتشيل ببوم مم مو كي جيرل ببوم تلو يالا أمب شيء كلام رك لجم لولا خمنا مو ورا لورو أكتر من جامبور نك دكو دين الإسلام نيو أم باي ماجي باخا باخا baax fu ñuy naanee ci lislaam rek tey am na teen fii ci njàmbur donc lu mel noonu bu amee rek loo ci tudd rasulilah sallallahu alayhi wa sallam rek ci kanam lay jëm walilahi alhamdu macha allah chef bi mel na ni euh, foo tam tey ci àdduna bi soo nee Louga ñu ne dëkku dëkku diine la dëkku lislaam euh, ndax loolu mag ñoo ko liggéey wala itam ndax li mag liggéey bàyyi ko tey ci loxo yi ndax xale yi ni ñu ko tey ndax dañ ko bàyyi ci loxo yi dëgër wala lu war a waaw xam nga qul inna al-fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa yàlla moo yore ngëneelam di ko jox ku ko neex yàlla dafa tànn Louga ci biir dëkk yu bari def ko comme ni ko mooy sa tuddee capitale l'islam carrefour l'islam nga xam l'islam bu pur moo fi nekk muy xéewal bu yàlla xéewale waa waa Louga waaye dafa am lu gën a am solo mooy li nga wax muy relève lépp loo gis rek bu relève bi baaxul daanaka dootul am meññeent kon alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ba li yàlla di nattoo muy yuxrijul xayya min al mayit wa yuxrijul mayita min al xay dafay jël luy dund génnee ci lu dee loolu dalul waa Louga ndax tubaarkalla euh, ñii nga xam ne diine bi ci seen loxo la mujj ci këru diine yëpp nag waaye ci daara yi waaye tamit ci bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ak activité yi ñu ko fi defal rek ci kanam la jëm def naa lool relève bi moo ko waral te xéewal yàlla subhanahu wa taala ah, kon euh, sëñ Maysa maa ngi lay maa nuyu di la wax rek yaa ngi jàkkaarloo ak euh, Louga Production TV ñu bàyyi la nga nuyu ak ñoom ba noppi bon avant tout maa nuyu sama frère Ousmane mu nekk benn doomu njàmbur la boo xam ni tey la am occasion pour profiter remercier ko moom quoi euh, parce que même bu dul festival bi tamit moom Louga moo ko intéressé تلي كنا اللي ما كنا انترسي بهم إيمازي مي كنا دافعين نك إيمازي خامل أستن من كوي سخلا كون عثمان فريما دين كون ريمرسي دي كون نيانا تمر يالا كسون بورم دفول خيوال كوي ياتفا ما شاء الله نغا بوك تي إنسياتر يان خامل موي فستيفال رمضا لو بارا لنغن تخوال فستيفال بوبلا ميسن واو سيتا دير سنغال فو دم بطول فو خامل دان دان واخ لوغا كابتال كولترال دي سنغال دونك بنتفع سوني أناليز نيني لوغا كابتال ريليجي دي سنغال ndax dafa bari ay mag ñu baax ñoo xam ni ñoom ñoo sancoon Louga euh, mu nekk penc am kër sëñ Fallou kër maam Cheikh Mbay kër sëñ Abbas kër Soxna Assou kër Chérif yi ñoom ñëpp ñu nekk ay mag ñu baax te gisuñu aussi centre religieux yi seen bopp à travers euh, culture loolu rek moo ñu initié ñu léegi nañ leen créer benn journée boo xam ne journée retrouvaille lay doon ñoom ñëpp ñu daje leen pour ñu tàgg yonent bi vraiment. dëgg la macha allah liñ ci mën a jàngat itam mooy wax dëgg yàlla jàngat yi ñu xam ni ñoom ñëpp sélectionné nañ leen am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax tey euh, ñu ngi ci cëppaandaw li nga xam ne mooy clôture bi ndax def nga ko ñetti samedi invité ci ay jàngat yu am solo tey nga ñëw ñu jëlee ko centre culturel indi ko terrain de basket naka nga jàngate loolu. waaw Ameth yow vraiment avant tout yow dañ lay remercier parce que ñëpp xam ne yow mais taxaw nga taxawaay boo xamante ni tey heure bu amee problème bu ndaw rek waa Louga xewlee dara yemale woo sa liggéey yemale woo ko ak dara loo mën a am sa liggéey moo la ko gënal mais loo mën a am aussi sa dëkk moo la ko gënal muy njaamu kon occasion la pour ñu remercier leen mais ñun dañu nekkoon centre culturel début bi mu mu nekk normal quoi deuxième jour salle bi saturé troisième jour taal bi xajuñu fa ci la natt ni yonent bi xajul ci arux ni léegi nañ ko yóbbu fu yaatu bu ko defee ñëpp mën ci gis seen bopp quoi vraiment loolu moo moom waral ñu ñëw fii tey yaakaar naa ne édition 2022 ci kattan yaa ñu koy ñu koy préparé euh, mais bu déwénee incha allah rabi ban message ngay lancé ci ñi nga xamante ni si tey ji ay kilifa la nekk ci dëkk bi war cee jàpp pour bu déwénee édition bi gën a yaatu waaw c'est-à-dire euh, comme ñi nekk ci dëkk bi war ci jàpp moom dañuy faral di wax ni boo defee sa devoir le reste da koy bàyyi ak yàlla euh, Moustapha Diop ñi ngi koy remercier donc nekkul Louga mais am na ñu fi bàyyi ñu nekkal ko Louga ñoom ñëpp envoyé nañ leen lettre woo nañ leen téléphone am na ci koo xam ne daf na ma ñu sax dañ dul am jot vraiment loolu nekk na loo xam ne tamit amul benn problème parce que li ngay def bu dee yonent bi moo tax doo ci doo doo ci Euh, xool ku ñëw ak ku ñëwul. mais li ñu gën a marqué li ñu bëggoon suñu frère bi taxaw nga daf ñu ko yombalal. muy au niveau SADAF carte yi ñu waroon a moom moo woo Ngone Ndour. moom moo mettre contact ak Ngone Ndour. moom moo déplacé aussi gars ñu ñëw mu dugal kayitu booy yëpp pour jàppale waa Louga. donc kon ñoom loolu rek bu ñu ci réussir la reste moom c'est pas méchant quoi affaire autorité moom ñu ci wax mais dañuy nekk ci yoon wi rek. yag yag da nañu dab insha allah rabbi mais ñun ñi ngi ci yoon dal ndax amet ñun kenn xamewuñu xaste kenn ñu wax lu ñaaw kenn xamu ñu tooñ kenn ñu dara li xam rek moy def lu baax ak nekk lu rafet te yoon bi ñu nekk bo ci nekké di xasse wala ngay xulo da fay melni tay yàlla taxatul wala yoonte bi taxatul quoi te li ku nekk nak am na koo koy seetee sama frère Alsane Camara léegi la fi jugee ma bu sell léegi la fi jugee yow yaa ngi nii taxaw euh, Mame Samba Bathily léegi la fi jugee donc kon vraiment jàpp na ñëpp ñëw nañ Chérif Limam léegi la fi jugee kon donc jàpp naa daal amul problème quoi vraiment voilà. macha kon naa la ñu may sa. voilà ñu laaj rek grand gaar laaj rek sa taxawaay ci festival Ramadan édition ma ko waxee sànq rek sant yàlla bu baax di gërëm Euh, et même production bi nga xam ne ñoom ñoo produire vraiment euh, festival bi ni ma ko waxee rek man damay bëgg képp kuy acteur culturel artiste nga avancé moo tax Soraaf taxawaayam c'est pour encourager leen jàppale leen ba kenn ku nekk li ngay def nga mën koo jariñoo moo tax ñu instauré li nga xam ne mooy euh, attestation yi leen jox parce que ñoo bëgg kenn ku nekk boo boo produire ëllëg nga am attestation nga moom mën a doon sa bi ngay def mais ñoom c'est des jeunes yoo xam ne jàmbaar lañu parce que mënuñu def leneen ah ba dañoo jëm woon ci bi xam ne moom ci la bokk ci la bokk ñun suñu mooy jàppal li ànd ak ñoom encouragé ba nga am réussite totale incha allahu rabbi waaw. ci wàllu organisation yaakaar naa ne émission yi war nañoo xool naka lañ gën a

gën koo taxawal sab wóor a wóor boo xam ne liggéey bi dina mu gën jëm kanam parce que lii moom tànk kanam la am amu tànk noo parce que diine la ñoom sañuñu koo bàyyi ñun sañuñu koo bàyyi il faut ñu pousse leen alors madame la présidente Ngoné Ndour def na li ko war bi ma ko sante ñu jox ko lettre mu laaj ma ma wax ko li néew a bëri am nañu participé déwén nag dañuy gën a jàpp ñoom mu gën yaatu seen teewaay aussi du koy sàkku ci jour boobu incha allah ngir ñu mën a ñëw dina liggéey liggéey même moom wax na ko déwén jàngkat yi gën a dugg si balaa déwén sax ñi fi nekk ñu dina adhéré ci biir li nga xam ni mooy programme bi incha allah. incha allah waaw jërëjëf. merci Ngare kontaan nañ jërëjëf Gara merci beaucoup ba tey ñu wéeru ci festival fii terre basket bu